ni ñu ko junjee ci boppu xibaar yi mbootaayu liggéeykat yu nekk ca dakaar dem dikk ñoom nag ñu ngay joxoñ baaraamu tuuma direction générale gi rawatina bu ressources humaines ga bokk na ci tuuma yi luubal xaalis doxalin gu jubadi gu ñeel seen coopérative gi jëm ci wàllu dund ak tamit IPM gi ci loolu nag nee nañ dafa jot ngir ñu dakkal lu ni mel loolu nag moo waral ñoom ñu ne fii ak semaine bi di ñëw bëgg nañ ñu amal élection représentativité gu jëm ci IPM googu amaana sagar dina xeeñ ca biir këru liggéeyukaay ga dañ ciy déglu Mamadou Goudiaby moom mooy secrétaire général mbootaay googe ci micro Fat Bintou Konté bi njuuj jaaj dafa am parce que tout simplement dañu ne pour gérer IPM bénévolat la maanaam euh, def ko pour rien def ko ngir ngir yàlla ngir askan yi mais dañ faa dugg xamul ban pexe la ñuy lekkee xaalis ñu créer ay prime maanaam ndàmpaay ñu ne ndàmpaay gestion ndàmpaay bilan ndàmpaay euh, exceptionnel exceptionnel boobu kenn xamul nan lan la exceptionnel. da nga xam luy loolu prime yooyu yëpp boo ko dajalee at bu ne dañuy lekk ñetti million ñeenti million bu mujj bi 2010 ils ont programmé huit millions li ñu war a lekk total bi ñu juddoo Dakar Dem Dikk juddoo ba léegi vingt million nee na mër. pétition la ñu def maanaam kenn ku nekk wax ne ndax bëgg ngaa dem élection wala bëggoo dem majorité écrasante ne dañu bëgg a dem mieux. protocole d' accord diggante ministre bi ak ñun ak 17 délégués sur 22 dañu signé un protocole d' ne dañuy dem élection mais élection délégué du personnel ak volonte travailleurs bu taxawee amul benn loi bu mar war a taxaw parce que ñoo moom seen yëf. dama bëgg a nguur gi bàyyi xel bu baax ci directeur des ressources humaines parce que explosion bu amee fii moom la bu élection amul dépôt bi dina toj alxamis lu leer laa wax. directeur général li ma koy wax mooy na dëpp ak recommandation de bi état bi def lépp luñ ko wax a sac yi am fii na ko lokkorti li ci des état baa ngi ciy def liggéeyam beneen bi mooy lépp li travailleurs yi bëgg seen moomeel la bu mu couvrir kenn audit bi mu wax ne mu ngi koy def économent na gaaw indi résultat parce que bu indiw résultat dañuy yóbbu dikk lañ koy yóbbu. mu nekkoon Mamadou Goudiaby laaj ak tontu dox si digganteem ak Nafisatou Silla ak Attanar Ba